xar yi man Baye Mandione dafa maa bett ndax yaakaar naa loolu waru kaa wax waroon naa wax leneen ba mu des ne man taxaw naa man comédien laa man Baye Mandione su ma xarit la man nawloo ko Baye Mandione su taxawee ba ne man comédien kon moom comédien la man ak moom ñoo bokk yem ndax su taxee ci benn cadre cadre boobu mu taxawee ne man comédien laa man cadre boobu laa koy jàppee moom it ne moom comédien la ndax moom fu ma toll mooy fa la toll rek daa bëre daanu ma bëre daanu mu bëre waat daanu ma bëre waat daanu kon comédien la man yenn affaire laa def yenn affaire laa def man ah man ñii laa mel sa naturel c'est naturel déggal doomu aadama yi man su ma bëree daan chaque jour ñu tëggal ma combat man maa saf amateur yi ndax damay bëggal amateur yi li ñu bëgg dama leen koy defal dinaa leen poojal dinaa leen bëreel tey jii bàyyi ma njoon man daf maa bett ndax moom su taxawee jéy sama nawle la sama patron la jéy promoteur la grand promoteur la Sénégal ñëpp ko xam moom su taxawee naan jéey suqu Pa Abdou Fall la loolu waru ko ndax jéey Pa Abdou Fall ay doomu ndey la ay xarit lan jéey lu gaa yi man mën nan ko mën na lu ko raw tey mën na boole VIP yi nekk Sénégal yëpp tëgg leen ci benn journée barke Sëriñ Bamba Mbàkke waaye soo gisee def ko xale la daa nekk ci yoon da ko yoddu saqatu jéey li muy fay ci ay employé par weer ëpp na miil man maa la xamal loolu ay employé am rek ëpp na miil jéey du suq kenn du coggu kenn kilifa la kilifa nag du tuut yàlla moo koy def doomu aadama da nga ko koy nangul man bàyyi ma njoon daf maa bett man ndax séntu woon naa ko feneen fudul foofu tey ba ñu ba toogee si tele bi jéy loolu mu wax nii am nañ plein droit keneen ak keneen am nañ plein droit te mooy am su taxee ne Xaadim Njaay ñoom kàddu man maay seen challenger su leen su ko neexee tey jii ku ci nangu pare na pour tëgg sama combat ak moom su waxee loolu ah ne soo leen nanguwul ma tëgg ko ma boole ko ak Baye Mandione loolu ba mu koy wax Dieye ay kaf la ko dikkee woon sax ndax Dieye moom xamoon na ne Ndione sama xarit la man Ndione taxaw na fii léegi am na fi combat moog les deux am boo yu naa ma yow Ndione sax sa xarit la Ndione sa la Ndione ba euh, magam bu jigéen wu wàcce liggéey ñu ko njëkk woo si laa bokk te dama ko doon bëgg a dem pour jaale ju ko demu ma am empêchement ma woo ko ne ko damaa génn waaye wax dëgg yàlla su ma teelee ñëw naa fekk revers du corps ba comprendre nga ma am fu ma ko teg comprendre waaye warta taxaw naan man comédien laa man su waxee comédie comme man comédien laa kon comédien yi bari nañ Sénégal comédien yi bëri nañ ci réew mi ndax moom moom kon ci comédien yi la bokk ndax li may def lay def ah, ah xamoo ci njoon ay njoon ay manière moo gën a garaaw samay manière njoon rek ay manière moo gën a garaaw samay manière njoon a mëpp manière téeméer yoon xam nga loolu yow njoon moom ëpp yi manière téeméer yoon man dara méttu ma mën naa dékkulu ne waaye li mu yekk sama patron moo ma metti jéy production grand promoteur mu naan ko ah, ah, suq la ah, njoor xamul suq laa njoor xamul suq kenn nee la mille emplois waaye laax ni jéy am na ko da fay fii Sénégal Macky Sall wala Sénégal suñu amoon fukki yu mel ni jéy wala vingt yu mel ni jéy ah Sénégal suqe loolu soo lekk la moom day def ta du ci boole wax jéy day def te du ci boole wax man xam naa ko je connais très bien lui oui waaw je connais très bien lui ok lan mooy morom lu tax mun ta taxaw man jëlu moon disoo musuma xalaat ni ba ñoon ndax ñoon dama am fu ma ko tegoon dafa nekkoon sama doomu ndey ma seq ak moom jàmm waaye lii dina tax man du waaye man ku ma fayal ma bëri ñoon waaye ku ma fayul dara naa bëri ak yoon ndax mere naa ko man maa la wax lii ak dëgg waaye pourquoi mu taxaw moom naan man sox kii laa comédien laa njoon war na maa wax loolu non non dara ni waaye waruma koo wax keroog bi mu bi émission bi mu amee bi mu wootee ci télé dama ko ko njoon doomu ndey nga sama xarit nga waaye jéy loolu ndax jéy sama xarit la sama patron la sama kilifa la jéy suy wax loolu xañ ne ay kaf la ko dikkee ndax moom sax xam na ne sama diggante ay gaayen lan moo tax muy wax loolu kon nag am na loo xam ne njoon waroo ko wax mu dem na ba naan su demee lu amee lu mu koy tëggalee làmbu su euh, su jéey euh, amee lu muy tëggee làmb na ko jox jabaram mu toggal ko suppu kànje <laughs> euh, daa xamul jéey man chaque gudd yàpp laay reeree lu ma bëgg jabaru jéey defal ma ko toggal ma ko yàpp chaque jour suñu mu woo ma reer te yàpp laay lekk man soo ma xoolee xam ne tubaarkàlla macha allah sama patron daa naan la drobe la kilifa la sama doomu nday la kilifa nag du tuut kilifa du tuut gis nga jéey mii mu nuy wax daa xamul yee rek te gis nga loolu mu waxoon noonu da keroog ba euh, ba mu duggee ci téléphone ba mu nekkoon njoon li mu wax mer na ci ah jee wax loolu xam nga jee la la wax man dafa ne man njoon dañuy dem seeti ko ma yóbbul ko enveloppe bu duun barki Sëriñ Bamba Mbàkke nii la ma ko jee waxee te boobu no ndax lan ay kaf la ko jële woon ne dama koy yóbbul naa ko den fa dem ñu seeti ko ñu yóbbul ko enveloppe ndax lan ni mu to waxee réagir ci biir émission bi ci télé bi ni mu wootee noonu te jee bi mu koy wax ay kaf la ko jële woon waaye man dinaa lii dina tax man dinaa bëre ak njoon man naa maay laaj njoon man sama bopp maa pare pour bëre ak njoon ndax li mu wax dafa maa métti dafa maa touché sama xaritoog moom euh, xaritu la woon sama doomu nday la woon waaye mere naa ko waaw waaye yoon lan mooy morom njoon bokku loon adversaire ma ak moom sulum bi nga xam maa gën a laam ji daa bëre ak njoon bëri bu metti jóge fa ñu jox ma ko ndeysaan paa yére yàlla ko yàlla xaare àjjana moo taxawaloon combat ba ci ay laa daan sulum le ba juutal ko solo la jaaree génn làmb ji kon bokk naan adversaire man ak mom lan moy VIP waaw waye nak su dee ba ak ay modloo bëreetul du jamono yi lo gis ay jamono la man mi tay ji avant may def accident bi lu ne def naa mom xamna lool na nak fu lay dikkee dañ koy santé yalla sama gaay yalla na yalla xara aljana accident bo bokkon jóge ca kuma ma motax nga yàpp mo waaye man maa ngi sant yàlla baax a baax a baax a baax baax di ñaanal sama gaay yi génn ci ci accident ba yàlla na yàlla xaare àjjana muy Alioune Seye Père Mama Ba Gora Seck Cheikh Mbeng Cheikh Seye yàlla na yàlla xaare àjjana waa sant yàlla rek bu baax man lu ma am damay sant waaye njoon daal man bett na ma li mu wax sama patron metti na ma ndax daa xamul ku xamul xamul waaye jéey kilifa la tubaarkàlla macha allah déedéet du ma comédien kenn ku ma jàppee comédien nag yaa ngi nax sa bopp ni ma mel c'est naturel man sama lépp nii la c'est naturel waaye waaw waaw ko def waa sant yàlla rek la dëgg daanuwul nu mu daanoo waaw daan parce que dëgg daan décision de arbitre ngay wax décision de arbitres xam nga luy dal tok sa kaw bit gang wala carte api la deful carte api wah wa wa par point ngay wax da nga naan décision des arbitres da ngay leral décision des arbitres wa décision arbitre ci arbitre décision la décision arbitre xam nga daanu dafa ñaaw daanu moy ku tok sa bir ba nga def carte api ay la deful carte api toguñu si biram décision de arbitre wax décision de arbitre waaw voilà waaw <laughs> moo demee noonu rek waaye lépp dina baax incha allah lépp ay réglage rek lépp dina baax sooba yàlla mm-hmm. waaw ñoo ngi ñaanal maa ngi ñaanal suñu combat yi ñu jëm Balla Gaye champion la grand champion la ko ñaanal combat bi mu yàlla may ko ndam lu sedd bu ndax géej way taxaw fa mu taxawaan ak képp ku dëkk géej